بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد خير خلقه وعلى اله وصحبه وخديمي امته وسلم تسليما نيجي نوي بوك جوليت ييب تدي لين دوكال تي بيس بي تدي لين دي سانت تي ديك جي ني ديك ووي سي وات واتب سيرن بي te de leen ci gërëm bu baax a baax bis bi nag day bis bu rëy ci nun murit di bis bu rëy ci jullit yëpp ndax sant yàlla dafa rëy kon bu nu sëriñ bi wooyee ne bis bi bu dikkatee li may sant yàlla lépp xeeb naa ko dama bëgg képp koo xam ne ci sama mbég sa mbéga te sant le yàlla ci bis bi loolu rek mooy li wundu bis bi kon nag ñu ngi ci ndokkal jullit yëpp dellu ci ndokkal taalibe yi murid yëpp tey ñaan yàlla liñ ci séentu lépp ñu ci ceeg lu ko kawe liñ ci yaakaar lépp ñu daje ceeg moom yàlla gën noo defaral sunu gëm yàlla gën noo xirtal ci topp yàlla gën noo dindil sunuy ayib sunu ayibi xol ak lépp loo xam ne day gàllankoor nit ci ba tax doo mën a ànd ak sëriñ bi ñu ngi ñaan ci daraja bis bi yàlla di ngir waaw xam naa xat-xat bi loolu nag la jërëjëf maa ngi nuyu mbokk yi ko jël si woon yëpp jërëjëf.